del déglu dal leen ak jàmm dañu koy door rek soxna Aida Diallo mi nga xamante ne bii tijji na ab boutique boutique ba nag ñu ngi koy woowee Aida Cuun di boutique boo xamante ne bii soxna Aida Diallo ci boppam moo ko lancé ki ñuy wax ne Fortinam fi mu nekk nii toll na ci ay milliards lancé na daal loo xamante ne bii tam man cee mën di liggéey rek ngir mën koo jàppale ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo ay taalibe Cheikh Béthio soxna Aida nag boutique boobu nga xamante ne bii tijji nañ ko rek gis nañu ay photo yoo xamante ne bii xëy nañu partagé ko ci réseaux sociaux yi wax ci classe animateurs yi Cheikh Sarr ak Aba ne bii ma ngi cay wax la waral clash beeg la nga xamante ne bi noonu la ci doxee ak moom waaye nag dafa rek métier bu tollee fenn fi am na ci yoo xamante ne bi xaj na daf ciy baax li lay waral clash boobu nga ne bi ñu ko te it nag lépp rek dafa dox ci jàmm ak salaam daanaka ci kafak rek goo xamante ne bi ñoom ñaar doon nañ ko amal Aba Nostra Cheikh Sarr di wax ne yéenewu ko lenn lu ñaaw xaritam la te itam rakkam la Alima Ndione ma nga xamante ne bii bañ ko laajee ci classe dafa waxoon ne geerub taalibe daal yoonu sëriñ nekku ci laaj nañ ci Cheikh Sarr xalaatam mu wax ne Alima Ndione moom sama xarit la Alima Ndione daanaka du tëdd guddi ma ko te dégguma ko te woowuma téléphone daañ déggante di waxtaan ci lu bari man ak moom kooku nag sama rakk te it nag man ak moom ñoo def ab diwo ba diwo ba jeex te amul benn yoon boo xamante ne bii rek dégg nañ ci xiiroog ala ŋaayoo man ak moom ay xarit dëgg lañu wax naa ci moom ba noppi lu rafet te itam dootuma wax ci moom lu ñaaw wax ci Aïssatou Diop Fall ak Moustapha Ba mi mu waxoon toog ci ab télévision ci Public SN def ay révélation daal ne daal ki nga xamante ne bii moo di Moustapha Ba daanaka xaalis bu bari la ma doon jox te it nag xaalis boobu mënatuma ko am ci nguur gu bees ki nga xamante ne bii taxaw na fi mu nekk ni jaaxle dëgg laa def ndax it li nga xamante ne bii rek moo di nguur gi ba mu faloo ba léegi amul kenn koo xamante ne bii am naa ak moom connaissance te it nag tabaski gii di ñëw ak ma war a fay samay employé dëgg-dëgg ci ay jafe-jafe laa ne Salma Ibrahima Fall noonu la génnee di tontu ay Diop Fall ñoom ñaar itam ñu nekkoon ci classe boo xamante ne bi daanaka ña ngay yàkkante lu mel ni xeme Salma Ibrahima Fall gis nañ ko ci ab live boo xamante ne bi ma ngay tontu Aïssatou Diop Fall la kàddu yi nga xamante ne bi yëkkati na ko rek daanaka weñ wu ca dal dee wax ci Khalil Thiam Séri Babel ak Fat Bintou Thiam Séri Babel ñoom ñaar day seenu complicité daanaka jaaxal na ñëpp ndax it nag kii di Khalil Thiam bu weesoo complicité bi nga xamante ne bi am na kook Fat Bintou ñoom ñaar day ñu wax ne bu Séri bi weesoo sax la ñuy continuer di déggante te itam dañuy continuer di am boo xamante ne bi ñu ngi koy fësal fépp ci réseaux sociaux yi internet yi nag ni wax ne ñoom ñaar seenu diggante xel tey na ci dëgg mbaadu dafa am leneen loo xamante ne bii moo laxasu ci ginnaaw wax ci Mia Guissé mi ñu gisoon muy def ab spectacle Mia Guissé de ak gis nañu leen ci spectacle ba nga xamante ne bii gayndey Sénégal ci wàllu basket bi ñu ngi doon amal ab spectacle ñoom ñaar ñu di ko assuré waaye la ñu nemmeeku rek ci nga xamante ne bii moo di Mia Guissé moo di col gu sexy ak piercing boo xamante ne bii ma ngi ko def ci jumba xam daanaka loolu yi bu fekkee ni neex na ñi nga xamante ne bi ñooy ay fan sam ak di ko topp saa su nekk ñeneen ñi itam ña ngi koy critiquer lu mu ci mën di doon rek mi yaa gisee mi ngi continuer en tout cas di def buzz fi nga xamante ne bi mooy ci seen musicalu Sénégal wax ci Ndeye Ndack Touré mi nga xamante ne bi jëloon na ay position ferme taxaw di jàppale Ousmane Sonko daanaka ba Ousmane Fallo ba léegi kenn déggatu ko woon Ndeye Ndack Touré démb lañ ko gisaat mu daal di génn publier ay photo yu bees tax yoo xamante ne bi mën nañu koo ràññee fépp ci réseaux sociaux yooyu les photo nga xamante ne bi mannequin bi de mi ngi ciy wane ab taaram waaye rek di gën di belli moom Ndeye Ndack Touré wax ci avion Air Sénégal bi nga xamante ne bi daanaka ab crash la def fukki nit am ci ay blessé bokk na ci ka nga xamante ne bi am na ci ay blessé moo di pilote ba nga xamante ne bi moo doon dawal avion ministre bi nga xamante ne bi moom lañ dénk wàllu jaww ji ak bi de demoon na fa daal di leen di xoole rek masawu blessé wax ci Pape Sidi Fall bi ne bi ay daal di fa mi ngi nekkoon ci ab saak ñu daal di ko yóbbu léeg-léeg nag di lenn loo xamante ne bi daanaka du Pape Sidi Fall ci bari ñoo xamante ne bi ñu ngi nekk ci milieu showbiz bi wala ñu nekk rek ay nit yu siiw ay nit dañ leen di fekk daal di dajji seen oto yi jël fa eh, Pape Sidi Fall di wax ne tey journée bu metti laa dund ci sama àdduna kon nag maa ngi leen di fàttali rek bu ñu bàyyeeti lenn lu am importance ci biir oto yi wax bi nga xamante ni bi génn tontu Pawlish Mbaye wax daat ne Wally baax na ba noppi tey itam kenn mënu koo bonal dem na sax bay wax ni diggante Wally Seck ak ki nga xamante bi moo di Pawlish Wally Seck day lépp lu ko waroon rek def na ko diggam ak Pawlish yóbbu na ko bitim réew jàppale na ko jël na oto jox kon nag amul lenn loo xamante ne bii rek fi mu nekk nii mën nañ koo reproché ci ki nga xamante ne bii moo di Wally Ballago Seck ndax ku mu àndal rek def na ca waru garam ba mu mat sax wax ci mbir mu doy waar ma nga xamante ne bii am na fii ci Ndakaaru mi di maire Aïda ak Lamine mi nga xamante ne bii daanaka juróom-ñaari paaka la ko dëbb maire Aïda ak Lamine nag seen histoire Lamine na mu koy nettalee mooy maire Aïda ba mu ko woowee nu ko indil sab natt ndax nag natt bi daanaka tardé na maire Aïda maire Aïda ci noonu ci la Lamine daal di demee këram ñoom ñaar ba mu eggee ci li Lamine di nettali daf na ko exil biir kër gi Lamine na ko fii baax na duggee ñoom ñaar ca néeg ba nag la la fa xew yàlla képp xam li wér daal mooy ci Lamine jam na ko fa juróom ñaari paaka mère Aïda nag di wax ne Lamine doomam la te itam daf ko doon xoole bëtu doom donte Lamine ma ngay wax ne mère Aïda daf ko doon bëgg sàkku ca néeg ba li lay waral ñoom ñaar ñu daal di jote ba mujjee ko dëbb juróom ñaari paaka lamin moom ñu ngi wax ne bu moytu dina tëdd juróomi ati kaso ndax fi mu nekk nii ma nga ca loxoy yoon Pape Alé Niang mi ñu fal directeur RTS day wax na Pape Alé nee na gis nañ lépp vidéo yi nga xamante ne bi def nañ ko ci moom yu bon yeeg yu baax yëpp waaye li wér te wóor mooy amul kenn koo xamante ne bi rek am na maqaama mu di la tontu moom Pape Alé Niang na ñëpp te itam baal na ñëpp ci xol bu sedd guyu moom nee na dafay rek arrêté li nga xamante ne bi mooy live yi nga xamante ne bi doon na ko def ci Dakar matin waaye nag rôlam di wàllum journaliste loolu yi du ko bàyyee ma ko ndax it nag moom ab journaliste la bu bëgg métier bi donte fal nañ ko directeur bu RTS dafay continuer rek di doon journaliste te itam journaliste mooy génn lépp loo xamante ne bi rek war na koo génne di information jox jox ko askan wi Pape Alé Niang nee na loolu lee moom du ci dañ tey te itam du ci dañ ëllëg Ndella Madior Diouf tey nouvelle bu metti moo dal ci kawam ndax it ginnaaw liberté provisoire bi nga xamante ne bi mi ngi ko doon sàkku dafa mel ni liberté provisoire boobu dañ ko ko gàntal Ndella Madior dafay daal di desaat rek ci kaso ba ginnaaw la nga xamante ne bi ay avocat am sàkk woon nañ ko di liberté provisoire ngi di ko teggil tuma yooyu nga xamante ne bi moom lañ tegoon ci kawam mu di wàllum rey ni ak wàllum exercer métier moo xamante ne bi du sa métier ak suul nit amoo autorisation loolu lépp ñu kawam ay avocat ñu ngi koy weddi teewul ba tey ñu daal di ko gàntal li nga xamante ni bii rek moo di liberté provisoire Ndella Madior di desaat rek ca kaso ba nga xamante ni bii fa waxtu bi tembe foofu lañu ko tëj. Après avoir conquis le cœur de Sénégalais et Sénégalaises par des sourires radieux, rayonnants et extraordinaires. Chic Dental Stétique débarque à nouveau dans la diaspora européenne. Oui, Europe Tour 2024, phase 2. yéen ñi ko doon laaj pare leen waa Chic Dental a fan la ñu jëm waa Milan Rome Torino Bergamo Genova maanaam Italie wërngël waa Washington Tal dinañ fa nekk du 29 avril au 8 mai bu ñu fa jugee Luxembourg la ñu jëm teg ci Nice Marseille Toulouse ak mbooleem dëkk yi ngeen bëgg ci biir France li ko dalee 9 mai ba le 16 mai 2024 adresse bi biir Paris mooy 13e arrondissement waaw waaw ak Chic Dental sa reetaan dafay gën a neex Chic Dental mooy reetaanu aljana Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp au 77 290 45 49 ou le 78 120 59 90 ku am ba ñu chic dental boo reetaane ñu ne la yow foo jóge chic dental yaa ngi toj Europe information yu leer Feeling Dakar yaa nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling ngi Feeling Dakar